beaucoup euh, Cheikh Tidiane Youm euh, mu bokk ci conférence des leaders de bokk bokk euh, léegi ñu jéem a tenté am xëy na honorable honorable Guy Marius Sagna mais li ngay wax ci Pape Alé Niang rek lañ lay question mais pas Pachiki bi honorable le peuple réclame réclame son son député le peuple réclame son député moo nekk ni euh, Guy Marius Sagna bi nga xam te ni journaliste yi ñu ngi yuuxu naan libéré Pape Alé Niang yow bokk nga ci ñi doon awu yëkkat sa loxo di brandir naan libéré Pape Alé Niang Guy Marius Sagna le peuple est à vous lan ngay wax sénégalais yi. lii damay kidnapping. dafa xew. mais dafa xew kidnapping dafa xew. d'abord féliciter journaliste yi nga xam ne. ñoo am euh, fit fulla ak fayda préparé flash mob bi nga xam ne moom ngeen def démb ndaxte ñu ngi koy woowee flash mob manifestation biir assemblée nationale pour la libération de Pape Alé il faut être un journaliste digne maanaam journaliste bu am fulla ak fayda journaliste incorruptible journaliste insoumis pour am fit def ko donc may euh, sargal euh, journaliste yi nga xam ne ñoo togg loolu ba wan ko ci ba def ko ci assemblée nationale wan ko sénégalais yëpp wan ko àddina si sëpp je crois que Pape Alé fi mu nekk xolam war na sedd guy ci ne épreuve bi nga xam ne président Macky Sall moo ko ko teg te du dëgg du yoon xolam war na sedd guy ci ne wéetu ci yéen ñi nga xam ne yéen ay mbokkam direct ndaxte bokk liggéey bi ak moom taxawu ngeen ko ni ngeen ko war a taxawee la lutte nag continue xeex bi day continuer président Macky Sall dafa foog ne toutes les plumes des organes de presse peuvent être des plumes corrompues président Macky Sall dafa jàpp ne toutes les caméras de la presse peuvent être des caméras couchées président Macky Sall dafa jàpp ne képp kuy journaliste ci Sénégal mën na la def dame de compagnie Pape Alé ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak yéen vous lui administrez tous les jours di ko indil ay firnde ci ne ci presse bi tamit il yàlla a digne ay il y a indigne dafa am ay taskatu xibaar yoo xam ne dañoo am jom fulla ak fayda di wax te yàlla tax di wax te dëgg tax di wax te bëgg sa réew tax li ñuy naan nag euh, bëgg sa réew doy na jaamu yàlla yéen ñii yore seen caméra yéen ñii yore seen xalima yéen ñii yore seen micro loolu mooy seen pàcc ci jaamu yàlla ci bëgg sa réew ci défendre sa réew. honorable député euh, Guy Marius Sagna euh, président la république Macky Sall doon na wër ci àdduna bi ba ci surtout sax euh, dans les télé privées dans les télé internationales di wax ni journaliste au Sénégal kenn du ko fa tëj tey nag lan la wax waa koñ xanaa gàcce xanaa rus. xanaa son vrai visage wan ne lim ñu doon jaay ak Macky Sall bi nga xam ne moom la sénégalais yi découvrir depuis 2012 mu ngi mel ni yàlla ak yàlli xam nga booy def lu bon di sàcc alalu réew mi di torturer sénégalais yi di ray sénégalais yi di mbuxum ngir yow sa mbokk say xarit ak ñoom seen doo bëgg ñu koy siwal doo bëgg ñu koy wone doo bëgg ñu siy wax doo bugg ci duut baaraam mu am nag ay organe de presse mu am nag ay journaliste yu mel ni Pape Alé yoo xam ne ci duut baaraam li nga xam ne moom mooy musiba ci askan wi fitna ci askan wi ci lañ dëkk moo tax nag président Macky Sall munul kontaan ci loolu moo tax président Macky Sall bu yeewoo bu xëyee ni muy jéem a fexelee ay opposants pour daan leen président Karim may Wade président Khalifa Ababacar Sall président Ousmane Sonko ak ñoom seen noonu lay fexelee bés bu nekk journaliste ak organe de presse yi nga xam ne ñoom ñooy wax li nga xam ne moom mooy le vrai Sénégal le vrai Sénégal mooy lan un président Macky Sall qui torture son peuple qui assassine son peuple un président Macky Sall qui vol son peuple qui pille son peuple un président Macky Sall boo xam ne day jiital njëriñu doxandeem ci kaw njëriñu askanu Sénégal un président Macky Sall boo xam ne dafa bëgg a reyaat ay doomu Sénégal ndaxte dafa bëggaat un troisième mandat illégal et illégitime donc ñun ñëpp ñoo ci war a taxawu xeexu journaliste la waaye xeexu sénégalais yëpp la yëpp la moo tax ñun sénégalais nañ si am taxawaayu bu mat sëkk lu tax ndaxte tey jii nii information juste et vraie ni noyyi ni oxygène amee solo ci doomu aadama noonu la information juste et vraie amee solo ci doomu aadama ci citoyen waa ji da doon wax ne le sommeil de la raison enfante engendre des monstres le sommeil de la raison engendre des monstres des journalistes debout comme Pape Alé Niang le sommeil de la raison sommeil de la raison boobu nag loolu la Macky Sall bëgg a instaurer fii ci Sénégal ñun ñëpp ñu tàggoog suñu sago ñun ñëpp ñu tàggoo suñu xel lu mu def ñu ne waaw lu mu def ñu ne baax na loolu nag la ñu wax ne du fi am tey du fi am ëllëg di féliciter Pape Alé di féliciter tous les journalistes debout li ñu def Pape Alé Niang nag mais c'est la suite logique d'autres violations feuse la njëkk dóor fii mu xëm mais Adja Ndiaye bu Dakar Actu anamu fii la ko fukki policier yu góor moo tax tey bu may dégg ñu naan xaw ma député bu jigéen boobu dañ ko mbéj ak ñoom seen mais Adja Ndiaye bu Dakar Actu fii ci corniche bi fukki policier dañ ko passé à taba ba wérul mais man seeti naa ko hôpital principal. hémorragie interne da ko am Adja Ndiaye bu Dakar bu Dakar Actu juste parce que elle a dirigé sa caméra là où il ne fallait pas mais euh, yooyu yëpp moo jur tey Pape Alé Niang ñu dugal ko ci kaso moo tax li di faral di wax naan le monstre est encore là le monstre est encore debout le monstre est encore fécond dëgg la may wax sénégalais yi ne déet bu ñu seetaan journalistes yi bu ñu jàpp ne mbiru pap Alé Niang mbiru taskatu xibaar yi la déedéet mbiru Pape Alé Niang suñu mbir la ñun ñëpp ndaxte bu ñu paree ci Pape Alé dinañ dem ci beneen journaliste waaye bu ñu paree ci presse dinañ dem ci parti politique yi bu ñu paree ak presse bi dinañ dem ci mouvement citoyen yi bu ñu paree ci presse bi dinañ dem ci syndicat yi bu ñu paree ci presse bi dinañ dem ci béykat yi bu ñu paree ci presse yi dinañ dem ci sàmmkat yi bu nañ paree ci bu ñu paree ci presse yi dinañ dem ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc suñu mbir la bu ñu buggee sàmm suñu bopp sàmm suñu Sénégal nañu sàmm Pape Alé Niang nañu sàmm li nga xam ne mooy la presse libre indépendante et autonome donc euh, voilà. honorable nee nga lii combat wu combat wu peuple bi la yéen représentant du peuple yéen ñi nga xam ne lépp luy loi ci seen loxo lay jaar est-ce que nag jotul mu am yenn loi yi yenn article yi ñu taxañ nga sànni fële ci mbalit bi li nga xam te ni article quatre-vingt ak yeneen yi ñu topp. dafa jot mu am assise wala ab lël boo xam ne day dajale. ñi seen xam-xam màcc ci wàllu presse muy yéen taskatu xibaar yi ak ñun euh, député du peuple ngir ñu waxtaan ngir ñu càmbar lépp luy këyit lépp luy article lépp luy euh, yoon bi nga xam ne mooy wax ci liggéeyu journaliste mooy wax ci information ngir ñu xool li nga xam ne mooy dëgëral liberté de la presse pour informer juste et vrai ñu dëgëral ko ñu dooleel ko ngir tamit ñu jëm si dindi li nga xam ne moom mooy néewal doole journaliste ñu dindi li nga xam ne moom mooy euh, note journaliste bi nga xam ne liggéeyam rek lay def moo tax tamit ñuy faral di wax naan ah gars yi nañuy fay euh, nañuy fay caméraman yi lu mat ndaxte jël caméraman di ko fay soixante mille di ko fay soixante dix mille moo am di ko fay soixante quinze mille moo am lan moo tax duñ ci wax ndaxte bëri na ay chef d'organe de presse ay propriétaire d'organe de presse yoo xam ne Macky Sall la ñu àndal donc ñoom lu leen neex def seen biir organe de presse soixante dix mille boo ko fayee caméraman seet leen nag depuis neuf heures caméraman yaa ngi fi depuis neuf heures caméraman yaa mais ñu ngi fi ban heure lañ fiy jógee fii la ñuy yendu soixante quinze mille mooy lan après nga ne oui y a la presse corrompue mais la presse elle ne peut pas être à l'abri de la corruption bu fekkee ñu ngi seetaan ñu leen di fay soixante quinze mille quatre vingt mille cent mille francs ci réew mu mel ni Sénégal diwlin yokk luwaas yokk ceeb yokk lépp yokk donc liberté de la presse, c'est aussi la condition, les conditions des acteurs de la presse. Les conditions des ouvriers de la presse. mooy yéen mii nekk ci terrain yi yéen mii di dem góor ak jigéen moo tax je profite également de l'occasion pour rendre un hommage appuyé les femmes dëgg la nag góor ak jigéen ñoo yem waaye nag xam ngeen ne liggéey bi métti na moo tax jigéen journalistes yi jigéen acteur de la presse tamit actrice de la presse ñooñu foog ñu sargal leen gërëm leen féliciter leen encourager leen ndaxte ñun bu ñuy mëkk grenade lacrymogène da ngeen koy mëkkaale ak ñun ñu leen ciy dóor naan leen du ko fi wane donc yooyu yëpp foog ñu xool ko foog ñu càmbar ko askanu Sénégal dafa soxla euh, euh, une presse indépendante une presse libre loolu nag mooy seen condition de travail ñaata lañ leen di fay ndax ñu ngi leen di cotiser IPRES ndax ñu ngi leen di en fait cotiser IPM ndax ñu ngi leen di cotiser retraite ndax ñu ngi leen di jox ay congé ndax ñu ngi leen di jox ay payoor yu baax ndax ñu ngi leen di bàyyi ñu wax ànd ak seen sago ñu wax lu ñu gëm te kenn bañ a dal seen kaw moo xam opposition la moo xam pouvoir la ñu bàyyi leen ñu def niñ ko sentiree niñ ko gisee donc effectivement jot na ñu càmbaraat lépp ñu seet seetantal teg yi ñu gën ko ñoŋal ngir mu nekk une presse au service du peuple sénégalais une presse boo xam ne qui protége les journalistes voilà jërëjëf honorable la juste. Mm, mm. Pape Alé rek nga waxoon ak journalisme. la toute dernière ci Pape envoyé parce que nekkoon nañ ci grève de la faim message yow en tant que un député euh, li may wax euh, Pape Alé Niang moo di ne Pape Alé Niang nous sommes fiers de toi nous sommes fiers d'avoir au Sénégal des pap Alé Niang qui sont incorruptibles. Nous sommes fiers d'avoir au Sénégal des papes aléniens qui sont insoumis. Nous sommes fiers au Sénégal d'avoir des journalistes d'investigation qu'on ne peut pas briser, on ne peut pas briser la plume. Nous sommes fiers d'avoir au Sénégal des journalistes comme Pape Alénian, dont on ne peut pas détourner la caméra des véritables réalités tragiques et dramatiques du peuple sénégalais. Pape Alénian, vous avez tout notre respect, vous avez toute notre admiration. Et nous sommes ce combat-là, nous allons le continuer pour une presse libre, pour une presse indépendante au Sénégal, en Afrique et partout à travers le monde. Tes collègues journalistes sont fiers de toi. Mais nous également, peuple sénégalais, nous députés, nous sommes extrêmement fiers de vous, Pape Alignan. La lutte continue. Euh, nous allons nous retrouver très vite euh, dehors, en liberté. Continuez à lutter du fond de votre cellule. Nous luttons à l'extérieur avec vos collègues La lutte continue. Ensemble, nous merci beaucoup mbokk ah,